façon yaab dog la fii maarifatil awqaati ci xam waxtu yi julli yi ne bunt bi daf ciy jàngale maanaam waxtu julli ndax waxtu julli julli dafa am ay waxtu muy muxtaar ak daruur mu ne al waxtu waxtu wa yan xasim dana sédd ko lil muxtaar yi ñeel muxtaar mi wala ak ñeel daruur la dal axbaar fa fuur yi muy boroom xam-xam mu ne waxtu julli yi dafa séddale ko ñaari xaaj dafa am waxtu woo xamante ni moom la wax waxtu moxtaar waxtu woo xamante ni mooy waxtu daruur nga xam boo amee ngànt ci waxtu moxtaar mi te julli woo ci julli ga su ko defee bu ñu yeggee ca daruur ma nga fay ko daruur mooy waxtu nga xam danga cee am danga amoon ngànt ba egsi ji nga daal koy fay ci daruur waxtaar mooy waxtu wi yi nga xamante ci lañ tànn ngir julli ci darur mooy bu fekkee da am ngant bu yeggee ci waxtu yooyu nga julli ko ci moxtaaru zuhri moxtaarum tisbaar min zawali samsi mu ngi min zawali samsi mu ngi bàyyikoo ci rëccub jant bi li aaxir xaamati ba ci taxawaay ba duunal lap ci ludu ak lant yoona moxtaarum moom moo ngi commencé ci bu jant bi rëccee suñu xëyee suba da ngay gis ker gi nga xamante ni moo féete ci sow bi di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba mujj gi mën naa dem ba nga xamante ni ker ga mën naa jeex tàkk mën naa demit ba du jeex tàkk waaye mën na faa des tuuti ker daal mën naa am ker gi jeex tàkk mën naa am tamit ker gi bañ a jeex tàkk waaye nag bu fekkee ne ker gi jeexul tàkk moom day wàññeeku di wàññeeku ba nga xamante daal dootul dootul dootul wàññeekuti waaye tamit dootul yokkooti nga xam danaan tekk taxaw wàññituwu yokkutut su ko defee nag foofu foofa la tisbaar muxtaaru duggee su fekkee ne tamit dafa wàññeeku ba ker ga jeex nga xamante ni dara desitu fa ca ker lépp jeex na kon su boobaa dañuy bàyyi ba mu des mu def ak keppaar tuuti rek su ko defee ñu doog a julli maanaam tisbaar <coughs> kon foofu la muxtaarum tisbaar commencé mooy suñ xëyee suba di gis ker gi féete ci sow bi muy wàññeeku du wàññeeku ba dem ba nga xamante ni wàññeetoogul daa taxaw nga xamante ni taxaw na képp su ko defee nag foofu dañuy xaar tuuti mu def ak keppaar su ko defee ñu mën a julli tisbaar léegi nag foofu nga xamante ni fi la muxtaar mi yem léegi nag foofu foofu la daruurum tisbaar daal di commencé foofu daruurum tisbaar daal di commencé wala asru takusaan muxtaaruha muxtaaram minha muy bàyyikoo ci mujjug taxawaay boobu noonu ilaa waxti sfiraari ba waxtu gel ga ilaa ardi ba waxtu gelug suuf si lal yuuxi waxuñu maanaam soog jant bi onqila na nga xelu nee na muxtaarum takkusaan nag mu ngi commencé ci fi muxtaarum mm, tisbaar jeexe moxtaarum tisbaar fu ñu jeexe woon foofu la moxtaarum tàkkusaan commencé su ko defee nag foofu mu commencé léegi fan la yem mooy buñ demee ba nga xamante ni léegi kër gi jàppaloo na nga xamante ni ci suba gi ci suba gi bi nga xamante ni maanaam ker gi dafa su ci suba gi dañuy gis ne naaj bi dafa tàngoon dafa tàngoon jër jër léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni léegi ker gi xaw naa jàppaloo nga xam ne léegi naaj bi ni mu tàngoon tàngeetu ko maanaam bu ko defee jant bi nga xam daa génn day mel lu tampoon bu tampoone ci suuf si day mel léegi day xaw a sonal suuf si day mel da koy xaw a xonqal noonu su ko defee xonqal ko noonu moom la ñuy wax gelab suuf si su ko defee foofu la maxtaarum tàkkusaan yem su ko defee nag ñu dellu ci tisbaar gi ma doon wax xam naa waxuma woon fii muxtaar mi yem damaa wax rek fi mu commencé muxtaar mi fi mu yem muxtaarum tisbaar fi mu yem mooy suñu demee ba nga xamante ni soo nattee sab takk mooy muxtaarum dama ko fàtte woon a waaye fi mu yem mooy buñ demee ba nga xamante ni soo nattee sab takk ndeer maanaam soo nattee sab takk ndeer mu guddee ne sa jëmm maanaam tolloog sa jëmm te boole woo ci bi tisbaar di jot la fa nekkoon ci ker boo ko ci wut su ko defee nga natt sab takk ndeer mu tolloog sa jëmm rek foofu la muxtaarum tisbaar daal di yem foofu muxtaarum tisbaar ba mu yem nag foofu la muxtaarum maanaam takkusaan commencé muxtaarum takkusaan foofu mu commencé nag léegi fan la yem muy biñ demee ba nga xamante ni suuf si gel na muy naaji nim tànge woon ci bëccëg gi léegi tàngeetu ko suuf si jàppaloo na léegi jant bi daal di génn su ko defee jant boobu génn na mel ni day xaw a xonqa suuf si su ko defee foofu lañ wax loolu lañ wax gelog suuf si su ko defee foofu bu amee rek tisbar bu loolu bu amee rek takusaan moom muxtaaram jeexna su ko defee muxtaaram foofu mu jeexee nag foofu la maam daruuram moom takusaan commencé am daruuri yu ndaal daruuri yu li xaatay ni ñeel ñaari julli yi muy tisbaara takusaan maan boole seen fa li xurubil yuuxi ñeel na sawub jant bi inda man fa kaa xamante ni waa wat na xam-xam nee daroorum tisbaar ak takusaan moom fan la yam muy suñ demee ba nga xamante ni jant bi sowe saa bu jant bi sowee rek xamal ne lépp tisbaar yi ak takusaan seen daroor lépp daroor yi tisbaar ak lépp daroor yi tàkkusaan moom jeex na waaw nga xam léegi saa boo demee bay julliwaat moom diw suñu waxati maanaam joox julli waaye fay ngay wax kon dara tisbaar tàkkusaan moom mu ngi yem ci bu bi sowee wa maxribun timis muxtaaruha muxtaaram xul waxal xadruma mooy kem la nga xamante ni rek قدر ما كم لغا خمنتني تصلى دنگا جولي فيه كموم بعد الشرط جنا اب سرط علم بوب خميخ نوا كسط عورة لمن سطع عورة ودور الخبس أغلاب خبس قبل أزاني جك نرد أغلقام ودور الحدث أغلاب حدث لأن مختارم تك مختارم تيمس مختارم تيمس مغي كما سيكي بجانت بسوه lee na moom dafa gàtt gàtt gi mu gàtt moo tax ñu koy nattalee na bu saabu jant bi sowee rek nga toog fa diir boo xamante ni mënees na fa laab nodd su ko defee rek xamal ne euh, julli maanaam xamal ne muxtaarum timis jeex na loolu mooy nattale bi nga xamante ni moom la wax fii waaye tamit jàppal leneen li nga xamante ni des na ko xamee muy waxtaarum timis moom muy commencé jant bi so bu jant bi so ne da gis ay xonq-xonq ci asamaan si su ko defee xonq-xonq yooyu suñ demee ba gisatuñ ko ci asamaan si rek foofu la muxtaarum timis yem jeex na kon kon loolu mooy takk-takk bi nga xam moo gën a leer waaw muy xonq-xonq yooyu daal bi jant bi so nga xam ne ci timis jot na muxtaaram su ndee ba xonx-xonx yooyu gisatuñ ko ci asmaan rek moxtaarum timis moom jeex na summa summa la isha topp geex moxtaaruha moxtaaram min maqibi safaqi mi ngi bàyyi ko ci fàdduk safax li sulu si lay ba ca sulu si guddi ga ittaqi na nga ragal yàlla nee na moom moxtaaram mi ngi commencé ci fi moxtaarum timis ah, yemoon te muxtaanti ni su waxoon nañ ne mooy saa buñ demee ba xonq-xonq yooyu nga xamante ni moo nekkoon ci asamaan raaf na nekkatu fi muxtaarum geef maanaam foofu la commencé su ko defee foofu mu commencé fan la muxtaarum yem muy suñ demee ba nga xamante ni guddi gi soo ko xaajoon ñetti xaaj maanaam xaaj bu njëkk bi jeex na muy sulus bu njëkk bi mooy xaaj bu njëkk bi jeex na muy su fekkee dañ ne timis ñu ngi koy julli da ngay xool léegi di commencé timis timis ñu ngi koy julli ci fii ñu nekk Angleterre timis ñu ngi koy julli euh, six heures maanaam douze fi mu toll nii muy dix douze moom lañ koy julli léegi nag ñu ne maanaam suba jullik suba kañ lañ koy julli ñu ne jullik suba de ñu ngi koy julli maanaam euh, quatre heures euh, quatre heures lan quatre heures douze waaw quatre heures douze moom la koy julli su ko defee diggante boobu moom ngay xaaj ñetti xaaj xaaj bu njëkk bu jeexee rek maanaam muxtaarum gee foofu la yem ok waaw noonu moo ko leer noonu moo ko leerale foo mën a nekk rek damaa jël misaal ci fii ma nekk Angleterre waaye daal bu fekkee bu dëkk ba ma nekk rek xoolal buti timis waxtu wi ñu koy julli ba ca suba ga nga daal di koy xaaj ñett xaaj xaaj bu njëkk bu jeexee rek foofu la muxtaarum su ko defee mu taaram gee foofu mu yem na foofu daruuram maanaam commencé moom moom moom gee su man sub na nga askanale xam nga jël summa gi teg ko ci unsub gi nga xam mooy mooy mooy nekk ci jeexalukaay bind bi moo tax ma ne summan sub na nga askanal daruril isha muy daruri gee wal maxarib ak timis ila tuluu'i saadixil fajri ba ca fenku dëgguk fajar gi mu ne li nga xamante ni mooy daroorum timis ak gée fan la yem mooy bu ñu demee ba nga xamante ni fajar na bu fajar fenk rek xamal ne léppi daroori gée ak léppi daroori timis moom jàll na muy timis ak moom seen daroor moom jeex a tàkk waaw soo ko doon fay moom soo ko doon julli moom dootoo wax maanaam jooxe julli waaye fay ngay wax kon daroorim timis ak gée moom saa bu fajar fenk rek xamal ne lépp lépp lépp timis gee seen waxtu génn nañ ko wajaal na nga def moxtaar euh, li subxi ñeel suba moxtaaram waaw wajaal na nga def moxtaaran moxtaar li subxi ñeel suba min hu bàyyi ko ci euh, penku fajar googu ilaa isfarin ba ca set ga ala boog kawe na jalaa wuññ na di lu wujju ñeel kanam ga wajaxal na nga def moxtaaran moxtaar li subhi ñeel suba min hu bàyyikoo ci fenku fajar ilaa isfaarim ba ca set ga ala boobu kawe na xad jalaa boog feeñal na way wuññu na li lu wujuhi ñeel kanam ga nee na suba moom moxtaaram mu ngi commencé ci bu fajar fenkee bu fajar fenkee rek foofu la maanaam suba moxtaaram euh, commencé léegi nag fan lay muy suñ demee ba nga xamante ni sedd na nga xamante ni suba set na maanaam bëccëg set na nga xamante ni leer na nañ kenn bu doon ñëw sax su fekkee muurut kanamam da nga mën a xàmmee ne kee diw la loolu su amee rek muxtaarum suba moom jeex na foofu la yem kon muxtaarum suba mu ngi commencé fajar fenkee mu ngi yem ci bu nee ba kenn doon ñëw nga xamante ni bëccëg maanaam suba set na leer na nañ nga xam kenn bu doon ñëw muurut kanamam da nga mën a xam ne kee diw la loolu su amee rek muxtaarum suba moom jeex na wa mu ne wa wa minhu wa minhu mu ne mu ne wa daruri eh, wa daruri waaw wa minhu bokk na ci waaw wa minhu mu ngi bàyyi ko wa minhu bokk na ci maanaam euh, waaw wa minhu maanaam wa bokk na ci maanaam euh, kii bi waaw maa ngi fàttali bëgg a wax sax suba gi laa bëgg a wax daruurum wa minhu mu ngi bàyyi koo ci wa minhu bokk na ci daruurim maanaam suba mabda wada wa waaw ah. ah, waaw wa mabda'u daruri commencement wa mabda'u da nga naan wa mabda'u daruri waaw ah, wa mabda'u daruri commencement maanaam darurum suba wa mabda'u daruri commencement daruri suba min mi ngi bàyyikoo ci maanaam setu suba gi waaw waaw mabda ut daruri yi maanaam commencement euh, mox maanaam daruri suba commencement am commencé ci bu bu suba setee waaw mabda ut daruri commencement darurum suba minhum mu ngi bàyyikoo ci set googu noonu ilaa tuluu'i qurbi shamsi waahibil ilaa ba ca ba ca fenku catub jantub yàlla mi aji may xéwal ilaa tulluwaay xurbi samsi waahib ilaa mu ngay boole wax ne ba ca fenku catub kon naa bamtuwaat bind bindu leer waa mabda'u daruri commencement daruri suba min hu muy ko ci set googu ilaa tulluwaay xurbi samsi waahib ilaa ba ca fenku catub jantub yàlla mi aji may xéwal nee na suba moom mu ngi commencé ci euh, boo xamante ni suba sedd na mooy fi muxtaar mi yemoon rek mooy bu kenn doon ñëw da nga mën a xam ne kee diw la su fekkee muuru kanam foofu la muxtaaram suba yemoon léegi nag foofu nag fa la daruuram maanaam jëmmi suba commencé léegi nag fan la daruuram yem mooy bu nee ba maanaam jant bi fenk saa bu jant bi fekkee rek maanaam mm, daruuram suba moom jeex na léegi nag jant bi moom saa fenkee moo maam darul suba jeex na léegi nag foofu li fi bàyyi xel mooy saa buñ jullee fajar ba pare rek dañuy sib ku naafile saa buñ jullee suba ba pare moom maam buñ jullee fajar pare moom xamal ne sib nañ nga naafile fa ba des ñaari rakka fajar waaw saa fajar fajar jotee daal moom xamal ne sib nañ nga naafila ba mu des ñaar fajar ah, des ñaar rakkay fajar lay na sib gi nak mom moy dem di dem di dem di dem ba nga xamanteni jant baa ngi maanaam commencé genn su jant bi commencé genn te lepp genn wut mom baba day haram waaw ba su ne ba nga xamanteni manam nañ so pare dañoo xam ne sib nañ nga naafile sib gogu nonu moy delu wa di delu di dem di dem di dem dem ba nga xamanteni euh ciatu jant ba ngi commencé genn bu ngi sey ciatu jant bi commencé genn nga xam jant ba ngi génn te lépp génn ko nak foofu mom haram lay def moom doo fa doo fa doo fa ay xaraam nga neuf lepp su dee ba lepp jant bi genn lepp jant bi genn su ko defé sib gi nak dal delu suwat bu ko defé nak bin ne ba nga xamanteni jant bi yëkkatiku na luy toll ci ñetti meetar su ko defee nag boobaa ci ngay doog mën na def yëpp neef yi ba mën a def loolu si dana ko leeral ci kanam kon summal xadaa topp fay ga yant mi dana askanoo fil jamee ci mboole seen li baax di zil awqaat jëm ci ginnaaw waxtu yi indal xakami fa aji xarañe nee na ginnaaw boo xamante nag maanaam waxtu muxtaarum julli maanaam julli gu maandoon muxtaaram ak daruuram moom saa bu jeexee nga xam léppam jeex na kon booy julli julli ga dootoo wax maanaam jooxe julli waaye fay ngay wax ndax lépp julli ga daf laa raw julli maanaam tisbaar ci mi kon da nga naan jooxe julli su muxtaar ma jàllee ko dugg ci daroor ma ba tey boo doon jullit maam doo fay ndax rawagu la yaa ngi ci waxtoom ba léegi waaye nag lépp moxtaaram ak daroo julli gi moom bu jeexee moom saa booy julli moom dootoo wax maanaam jooxi julli waaye fay julli ngay wax ndax lépp waxtu julli nga raw daf laa raw kon mi na nga askane ansima zen bi aj màgg bàkkaar lil mu aq lil mu waqari ñë aj yeexe xatta tafuutafu ba mu faat ko bilaa ansurin ci lu ak ngant dur yi ko xamef na ma nee na nag na nga moytandiku julli jot nga yeexe koo julli ba waxtu raw la muy waxtu muxtaar gi raw la bañ yegg ca darul ma te amoon benn ngant bu la téyee julli ca muxtaar ma loolu nee na boo ko defee da nga am bàkkaar bu rëy rëy rëy kon su fekkee ne amoo benn ngant bu la téyee julli ci muxtaar moom nga yeexe julli bañ egg ci darul ma nga doog koy julli na nga xam ne am nga bàkkaar ah ci ci yeexe gi nga ko yeexe julli te amoon benn ngant ca muxtaar ma ehm, aw jëlee nañ nag maanaam waxtu julli gi muxtaar meeg daroom yëpp raw la nga xamante ne julli woo ko ci kon te amoo ci benn ngàndoom loolu dañ ko jël la comme bàkkaar bu rëy rëy nga ci amoon wa kuriha sib nañ ba na wa kuriha sib nañ naflu naafile laa xadaa ul man si nag waxuñu fay la nga xam dañ koo fàtte baada subhin ginnaaw suba li tuluuci shamsi ba ca fenku maanaam jant bi nee na ginnaaw boo xam ne julli nañ suba ba pare dañuy sib nga naafile mooy dama doon wax léegi buñ buñ jullee suba ba pare moom dañuy sib nga naafile waaw saa bu jullee suba pare moom dañuy sib nga def génn fële waaw ba mu des ñaar rakkay fajar léegi nag sib googu mooy dem di dem di dem ba keroog maanaam jant bi fenk waaw mooy dem ba keroog jant bi fenk sib gi day dem ba keroog jant bi fenk waaw saa bu jullee pare daal sib na nga fa ba mu des def fa génn naafale ba mu des ñaar rakkay fajar léegi nag sib googu mooy dem di dem ba keroog jant bi fenk bu ndee ba ko gis jant bi commencé ya fenk te lépp fenkut nga xam ne lépp génnagul kooku day xaraam ba dama ko waxee woon bu lépp génnee sib gi daal dellu siwaat nga xaar nag ba jant bi ak leeraayam yëkkatiku ñu toll ci ñetti mètre su ko defee nag nga mën a naafle waaw ah, laa xadaa ul man si mooy wax waxuñu nag fay la nga xamul lañ fàtte wala mooy su fekk da ngaa amoon bépp benn boru julli benn borog julli ko am farata la moom amul benn waxtu xam dañ naa la xaraam na nga fay ko ca waaw bépp borog julli boo am danga ko am te muy borog farata muy farata amul benn waxtu woo xamante ne dañ naa la mënoo ko caa fay waaw muy waxtu ñu xaraam neef rek yëpp rek waxtu woo amee daal julli koo xam bor la boo xam te ne borog julli boo xam farata la moom mën ko fay fi waxtu man doon fa a asrin ginnaaw takusaan li salaatil maxribi ba ca jullik euh, timis nee na ginnaaw takusaan tamit maanaam naafila ci dañ koo sib ba keroog julli timis saa bu ñu jullee takusaan pare dañu sib nga def fa gën naafila ba keroog ñu julli timis ba pare su ko defee sib gi nag mooy dem di dem ba keroog jant bi so bu jant bi sowee te lépp soogut nga xam lépp jant bi duggagut xam jant baa ngi mu ngi dugg waaye nag lépp duggagut su ko defee boobaa mu day xaraam nga dafa génneewle su ko defee lépp jant bu duggee nag sib ga daal dellu soit ba keroog ngay julli timis su pare soo jullee timis su pare nag doo ko mën a def neefle booy def mhm. waaw ba nga fajri ak ginnaaw fajar inda kulli arabin fa képp fa képp kuy aji am xel waaw ba nga fajri ginnaaw fajar inda kulli arabin fa képp kuy aji am xel mooy loolu leer loon naa muy saa boo xam ne julli nañ fajar pare sib nañ nga dafa genn naafile lu dul ñaar rakkay fajar waaw ñaar rakka fajar rek ginnaaw fajar fenk fajar moom dañ koy sib nga def ko fa waaw des maanaam ñaar rakkay fajar walakin na waaye nag laakin na sal wird waaye borom wird jawaasu ak daganam yuraa def na ko gis laxoo ñeel ko isa xalaba nem ay neexi ñaari bëtam alkaraan ngëmmintu ga nee ki nga xamante ni nag dafa daan def ay dog muy daraan yeewu ci guddi gi di jaamu suñu borom tey nag yàlla dogal maanaam mm, mu xaw a gëmmentu biddanti wul ci guddi gi ba ma def dogam yooyu nga xam daf ko daan def nee kon bu fekkee ne dafa yeewu te bi fajar fenk nga xam fajar jot na ñu wax ne nag saa fajar jotee sim ni nga dafa génn nafila lu dul ñaar ak fajar nee kon kii nga xamante ni daf daan faral di yeewu guddi di def ay naafile tey nag mu biddanti nee kon bu boobaa danañ ko may mu def foofu maanaam naafilem yooyu avant muy julli suba waaw kon boobaa danañ ko may mu def naafilem yooyu muy julli suba waaw moo xam nag daa yeewu fekk faja jot wala mu yeewu fekk fajar bi ko jot nga xamante ni bu commencé woon doon naafile sax du tee fajar dana jot waaye nag loolu lu ci mën a amit du tee maanaam comme moom danaan saxal di def guddi gi muy yeewu di julli rek te tey mu gëmmeen mu biddanti ba faja jot lu tey dinañ ko may mu mën a def neefalam yooyu avant mu julli suba wan naflu naafile in jalasa ndem toog wa kurhun wa kuriha sib nañ wa kuriha sib nañ naflu naafile in jalasa ndem toog na imaamul jumaati imaamu ajma ajma wa fawqal minbara ci kaw minbara duri xamef na ko nee na wan na wa toog na fawqal minbara ca kaw minbara imaamul ngay naafile ci ajuma maanaam ajuma bu nee ba imaam imaam bi war a jiite taxaw na ci kaw minbar bi nee nga difa commencé ak naafile imaam bi toog ci kaw minbar bi sib nañ nga commencé fa ak naafile su fekkoon ne sax da ngaa commencé di naafle ci biir naafle gi imaam daal di yëg ci kaw mimbar bi kon su boobaa da ngay gaaw rek daal di yëggale julli man mën ngaa yëggale julli gi après daal toog waaye su fekkee ne soo soo foon maanaam commencé woo foon def benn naafle maanaam tàmbali woo foon benn naafle ñu dem ba imaam bi taxaw ci kan mimbar bi commencé xutba commencé gul xutba commencé gul xutba foofu dañuy sib nga def fa genn naafle fa commencé fa genn naafle su fekkee nag imaam bi nag yéeg na ci ko minbar ba taxaw commencé xutba moom day xaraam nga def fa génn fa day xaraam bu boobaa ndax léegi xutba gi ci julli gi la bokk ci julli gi la bokk waaw te léegi li nga bëgg a def naafila la ci farata la ci julli gi la bokk nañ baada jumaatin ginnaaw ajuma isa lam yaxruj ndem génnut al imaam imaam ba al a imaam ba masjid njàkk ja xusa na nga jàpp nee na sib maanaam sib nañ ngay def ngay def jullik naafile ci jàkk ji ginnaaw buñ julee ajoo ba pare te imaam bi génnagul maanaam jumaa ji wala jàkk ji génn ko ci sib nañ nga dafa def bi génn maanaam naafile bala ngaa mën a def génn naafile rek da ngay bàyyi ba imaam bi maanaam génn jàkk ji ba dem su reyee nga doog a mën a def génn naafile ca jàkk ja wala jumaa ja ginnaaw buñ julee ajoo pare nee nag su fekkee nag maanaam imaam bi mënoon naa génn waaye nag daa génnut nga xam dafaa toog xëy di waxtaan ngir ay yitte wala ay soxla yu fa téye kon soo ba comme loolu moo ko fa téye rek nga xam mënoon naa génn nga xam di buddoon loolu moom day génn dem kon soo bu fekkee na yitte yooyu ko fa téye moom man du téye donte baa ngi ci biir jumaa wala jàkka ju téye nga mën faa neefale kon waxuñu ne maanaam saa bu jullee ak ñoom pare force da ngaa war a génn dem waaw su ñëw fee def génn neefale déedéet waaw kon muy ngi aju rek ci bu fekkee ne imaam daal mënoon naa gént génnul moom nga xam a yittee ko bàyyi ay soxla kon soo baa mën nga mën nga baa def naafile ndax moom mënoon naa génn waaye nag ay yittee ko bàyyi waaw aslun yaab dog la fii shuruuti salaati sharti julli mu ne xadintaha jeex na alkalaam wax ja fil awqaat ci waxtu julli fal aana léegi nan sarifu danañu walbatiku lis salaati jëm ci julli waaye nag bunt bi daf ci jàngale charte julli maanaam di tax sag julli mën a wér ne sag julli wér na léegi nag mu bunt biñ ñu doon waxtaanee di ci waxtaan maanaam di ci leeral waxtu julli yi jeex na léegi nag dañuy wëbatiku jëm ci wax li nga xamante ni mooy julli ci boppam am salaatu ndaal julli fa tahaaratu fa shurutuha amma salaatu ndaal julli fa shurutuha ay sartam tahaaratu xadas mooy laa bu summa taxaatu xabas topp laabu xabas nee na bokk na ci charte yi julli di tax sa julli mën a wér mooy nga am laabu xadas ak laabu xabas laabu xadas mooy jëmmi toj mi te loolu xadas moom laabu xadas mooy jëmmi toj mooy am toj laabu xadas mooy am toj léegi toj moomu nag dunul looy làmb di ko mën a daj baa nga di ko xool di ko gis waaye nag moom saa bu amee rek sa jàpp yàqu na lu mel na nga daal Euh, jàppoon ba pare daal di ngelawal nga jàpp ba pare daal di nelaw nelaw yu diis yooyu xam nga ne sa njàpp yàqu na waaye mënu ko làmb daj ko baa nga xool bu gis ko waaye nag sa njàpp kon su fekkee ne taxaaratu xaadas daa war fexe ba am taxaaratu xaadas li ci des nag mooy xabas taxaaratul xabas mooy jëmmi sobe jëmmi sobe nga xam man koo xool daal di koy gis nii waaw man koo xool gis ko nii waaw wala nga làmb ko sax daj ko nii muy taxaaratul xabas xabas mooy jëmmi sabay si léegi nag su fekkee ne taxawatu xabas daf laa war danga fexe ba def ko mu muy gën koo leeral mu ne fi saw bi maanaam mën naa nekk taxawatu xabas boobu fi saw bi mën naa nekk ci yére yi wala badani wala yaram bi wala makaani wala barab bi nee taxawatu xabas boobu jëmmi sabay si mën naa nekk loo xamante ni day nekk ci sa wala mu nekk loo xamante ci saw yaram lay nekk. wala mu nekk loo xam ne sa barab lay nekk bu fekkee ne sa yére dafa taq sobe na nga ko dindi wala barab bi nga xam ne da nga ci jullee mu taq sobe ko dindi wala sa yaram na ko dindi waaw daal di fexe ba daal fenn ci sa yére wala sa yaram wala barab bi nga jullee bu mu am sobe wa saturatul awrati ak suturaal awra bil kitmaan ci ak nëbb leen tamit bokk na ci charte julli nga suturaal say awra ba dara du ci feeñ booy julli waaw muur سي عورة بدر بيج فين ليك دانا ليرا صح عوري يقول أجا عوري جيجين وحساق بلي قبلة قبلة جبل قبلة بكونا جي سارتي نجا جبل قبلة سارتي جلي وانجا جبل قبلة واترك الكلام اكتمت معنا باي وخ جو خامنتي بوكول جولي آه، واخ جو خامنتي يق جولي تامت بوكول سارتي جولي نجا باي وخ جو خامنتي يق جولي bu doon wax joo xam day defar julli gi moom lu mu bari bëri du tee maanaam julli gi moom dara du ci yàqu waaye wax joo xam bokkul julli gi nga xam day yàq julli gi moom na nga ko bàyyi wa kullu fi'lin ak bépp jëf joo xamante ne dama day yàq julli gi ko bàyyi li mun naa jaati salaami ngir jim ci dee yàlla yàlla mi nga xamante ni mucc na ci lépp loo xamante ne ay gàkk-gàkk la wala ay sikk kon na nga bàyyi jëpp jëf joo xam ne daal bokkul ci maanaam julli wa awratu rajuli awray góor duna may ni ci lu ak fen maa mooy la nga xamante ni bay na sorrati nekk na ci diggante ay jumba xam wara ko ba tey ak ñaari bëti woomam moom li nga xamante ni mooy ay awraam loola moom mooy nga xamante ni suy julli faw daf ko war muur loola moom mooy li commencé ci jumba ba ci ay woomam commencé ab jumba ba ci ñaari bëti woomam moom na fa xew buy julli moom na ko muur waaw dara buñ feeñ amma nisaa naari jigéen fa ja amma nisaa naari jigéen fa jamiul jismi mboolem yaram mi yu àddu def na ko liñ awratan muy awra la daa sil ilmi fa borom xam-xam fa borom xam-xam yi waaw la daa sil ilmi fa borom xam amma nisaa naari jigéen fa jamiul jismi mboolem yaram yu àddu def na ko lim awratan muy awra la daa sil ilmi fa borom xam nga waaw nee na jigéen moom buy julli léppam awra la waaw dafa mën lépp lépp lépp dara wuri cee feeñ am na nag luñ ci génne moo tax mu ne illal lës yi ndara la nga xamante ni tus nii maanaam seetteef nañ ko mooy génnee génne nañ ko ci loolu nag minal kaf fay ni mooy mu bàyyi ko ci ñaari maanaam tenk yi wala wajj yi ak kanam gi duna ra si ci bopp bi war rijle ak ñaari maanaam tànk yi nee na li nga xamante ne moom lañ ci génne nga xamante ne bokku ci ci awra jigéen nga xam bu doon julli loola mën naa feeñ te bu feeñee wàññiwu dara julli gi mooy ñaari tenqi loxoom ñaari tenqi loxoom loolu buy julli mën na ko mën naa feeñ te du wàññi dara waaw waaw du jar buy julli muy sol ay gaam yi mel noonu wala ma ji ak kanam gi kanamam tamit xar kanamam buy julli tamit mën naa feeñ loola moom wàññiwu dara waaye nag duuna rasi waxuñu bopp bi nag bopp bi moom suy julli moom du ko feeñal xarkanam bi lañ wax xar kanam ak bopp bokkuñu kon xar kanam bi dañ maye buy julli mu feeñ ak ñaari tenq yi loxoom waaye nag bopp moom ak tànk yi du feeñ waaw ah, dañoo bëgg sax maanaam sol loo xam day jot ba yegg ci tànki di buubu lépp muur wakra sibal na sib salaatin julli fi saraawili maanaam ci tubéy isalam yakkundem nekkun sey u ndara fawqahu ci kawam tu jaru def na la yoolal isan boobe tu jaru def na la yoolal isan boobe nee nag na nga mat na nga mooy saniku sib nañ maanaam sib nañ ngay julli di julliwaaye loo xamante ni maanaam tubay képp la nga sol tubay képp daal di koy julliwaaye waaye na nga bàyyi xel li ñu la wax mooy tubay ji day nekk tubay joo xamante ni buñ ne na nga bañ buñ neen sib nañ ngay julli julliwaaye tubay képp lañ jul mooy nga sol tubéy joo xamante ne xëy na gudd na léegi nag tubéy ji nga xëcc ko ba muur sa jumbax bi nga xamante ni tubéy ji maanaam da nga ko xëcc ba muur sa jumbax bi après nga xamante ne commencé jumbax bi ba ci wóom yi lépp daal tubéy ji muur na ko nga daal di jullee loolu loolu loolu la ñu wax ne maanaam sib nañ ko waaw loolu la ñu wax ne maanaam sib nañ ko waaw nga julli sol tubéy joo xamante ni muur na li commencé sa jumbax ba ci say wóom loolu moom sib nañ ko su fekkee tegoo dara ci sa kaw waaw nga xam tubéy jooju rek nga solo loolu dañ koo sib ndax da ngaa war a rafetal maam ay teggin sa kanamu borom ba booy julli nga sol tuwee sol mbubb lépp war na gisu saw bi maanaam aji sobeb yére isa war na gis saw bi aji sobeb yére isa faqada ne mu ñàkk na ma an ndox wa saw ak yére mm, min waadima waaw war na gisu saw bi aji sobeb yére isa faqada ne mu ñàkk na ma an waa adima tam ñàkk ak thawba mbalaan min baadil timaasi ginnaaw sàkku ga fa innahu nag moom yu salli dana julli biha ak moom in yaxaf neem ragal na xuruuju waxtu xuruuja waxtiyaa waxtu ga bi xawli man ci waxe ka nga xam ne arafa xam na nee su fekkee ne danga sa yére maanaam yére bi nga sol dafa taq sobe wala sax maanaam yére yi nga am yëpp rek maam yére bi nga sol ak yére yi nga am yëpp rek dañoo taq sobe nga xam ci benn maanaam laabu ci waaw yëre yi nga am yëpp rek dafa taq sobe te amoo ndox moo xamante ne da ko mën a fóotee dindi sobe soosu te it amoo beneen yëre boo xamante ni tamit da ko mën a sol waaw nga am daal sa yëre yëpp daal daa am sobe amoo ndox moo ko mën a footee dindi ko amoo mbalaan moo mën a moo sol amoo yëre boo daa boo mën a sol amoo dara daal loo xamante ni maanaam mën nga koo sol yére yëpp dafa takk sobe amoo ndox moo ko mën a dindee te amoo leneen loo mën a sol ngir julli nee na kon bu boobu boobaa su fekkee ragal na waxtu wi jàll moom na jullee noonu ah na daal di sol rek yére boobu nga xam moo takk sobe benn ci yére yi nga xam moo takk sobe daal di julli dafa bañ a nekk nag man yére yi dafa takk sobe duma ko julli ndax naa xaar ba am yére bu mën a sol yooyu leneen loolu su ko dee def ba waxtu julli ko raw ko dana am bàkkaar waaw ah, dana am bàkkaar ci loolu ndax julliwaale sobe moom su fekkee ne maanaam maanaam nit ki mën naa julliwaale sobe te julleem baax mooy su fekkee tey dafa julliwaale sobe te mënu ko a dindi nga xamante ni maanaam dafa amul maanaam dafa ko mënta dindi mu julliwaale ko kon julleem baax na ndax yow lii la daal fi mu tuur nii danga ko mënta dindi ndax amoo ndox moo ko mën a dindee te amoo beneen yëre boo sol te yëre yëpp yi nga am yëpp tax sobe kon nee nag solal rek nga julli noonu ndax balaa waxtu yaram waaw soo fa nekkee naan du ma julli damay xaar ba yëre ma ba waxtoo julli raw da nga am bàkkaar wa in yakun nim nekk na mm, waqiran yeexee julli ga li adami tahaari ngir ñàkk laam faqad asa mooy na zanni ami borom xéewal gi moom laa doon leeral léegi su fa nekkee di yeexamtalu naan man daal du ma julli daa xaar daal ba am yëri bu mën a sol rek ndax fi ne sama yëri yi daal daa tax sobe ba waxtu julli ga ray ko ba waxtu julli ga raw ko waxtu julli raw ko mu jeex na xam ne mooy boromam te am na bàkkaar ci loolu mu def mu ne man koo xamante ni man koo xam la muy jiit amut maanaam maa loo xamante man dañ ko ma xaaral man koo xam ne la muy jiit amut maa loo xamante ni yastu dana ci suturaare awratu awraam bi ci moom lil or lil yi ngir rafle lil or yi ngir rafle sallaa kon na julli kazaaka niki noonu fan tabi na nga yeewu leen ki nga xamante ni amul lenn lum sol amul lenn lenn lenn lum sol xam nga ki weesu mooy koo xamante ni am na lum sol sax waaye yëri yëpp a taq sobe te amul ndox mu ko fóote mu ne kon na nga julle solal yëri da nga julli ngir waxtu bañ laaroo kii nag moom mooy koo xam amut lenn lum sol waaw amut lenn lum sol nee na kooku moom na jullee yaramu neen na jullee noonu ndax looloo ko dal maam tigg ko boppam yàlla mooy joxe te joxu ko lum sol kon nag bu boobaa na jullee yaramu neen na def yaramu neen loolu rek jullee noonu du tee julleem dana baax ndax yëre yi ngay sol nii di ci laax sa yaawra du caag ne maanaam da ngay bañ suñ borom maanaam kii la gis ko ndax suñ borom dara nëbbugut ci yow say say mbir ak sa sa sa bopp ak sa lépp dara nëbbugut ci suñ borom sa yëre yi yaa ngi ko sol rek ngir maanaam sa diggante ak doomu aadama ñu bañ a gis sa yaawra loolu dong la kon ki nga xam ne amul yëre bu mu sol amul dara lu mu sol julli jot na jullee noonu na def yaram neen te julli noonu wa muqtiul qibla qiblata ki nga xamante ne aji mooy xibla fa muxtiwul xiblata aji mooy xibla ma'muurun ku ñuy digal la bi an yu ayda ci mu baamtu fil waxtu ci waxtu wa salaa fil waxtu yooyu fil waxtu wa salaatin julli ga xaysu an fu fi gaaree waaw kon nañ ko baamtuwaat muxtiul xiblati aji mooy xibla ma'muurun ku ñuy digal la bi an yu ayda ci mu baamtu salaatan julli ga fil ci waxtu wa xaysu an fu mu fi gaare nee ki nga xam ne dafa doon julli daal di mooy xibla nga xam te ni maanaam xëy na sax mooy gi mooy xibla daa am ci lu mu daan sukkandikoo ngir daan ko mu daan ko won maanaam xibla tey daal mm, fam jàppoon ne mu léegi nag mu sukkandiku ca loolee bi nga xamoon daan jëfandikoo ngir mu koy won xibla di ko won di ko gise léegi sukkandiku ba jàpp ne fii xibla la mu julli ginnaaw bi mu paree nekkati sa maanaam affaire bi daf koo nax waaye du foofa kon su boobaa mu xam ne kat dafa du woon fii waaye fee la nga xam daf ko may kon su boobaa julleem baax na dara yàqu ci mooy boobu mooy xibla waaye nag mooy xibla tamit daa mën a ko maanaam ëpp na loolu dem na ba nga xamante ni su fekkoon da doon julli maanaam nga nekk ci biir julli gi nga nekk ci biir julli gi daal di yëg sentir ne yow daal. ndekete maam mooy nga xibla maam fi nga jubluwute xibla yaa ngi ci biir julli ci nee foofu dañuy xool su fekkee ne kii julli maam du gumba nga xam te ni kuy gis la ay bëtam muy gis léegi dañuy xool lim mooy xibla nu mu toll su fekkee lim mooy xibla day lu bëree bëree bëree bëri kon su moom julleem yàqu na day dagg julli gi commencé waat su fekkee li mooy xibla maanaam bëriwul tuuti la kon day tourné rek daal di jublu xibla nga xam xamante ne bëriwul day tourné rek jublu xibla mu jeex taag du jar muy dagg julli di commencé waat su fekkee nag ki nga xamante ne moom dafa gumba nga xamante ni moom gumba la mooy mooy julli daay mooy xibla kooku moom dafa gumba moom du ci xam dara kon subaa moo xam la mooy xibla daa bëri moo xam daa tuuti kon dañ koy tourner rek mu jëm xibla ndax moom gumba la xëy moom mooy xibla mën na ko yomb kon dañ koy tourner rek mu jublu xibla moo xam la mooy xibla daa bëri wala daa <coughs> man wa kullu lépp wa lépp loo xamante ni yu yuaadu def na ko baamtu fil waxtu ca waxtu wa laa xayrun lu nga xam ne laa xayru waxuñu waxtu wa fa diiratan la nil te yàlla nga am almuraada nammeel ga ne lépp loo xamante ni <clears throat> dañ laa wax nga baamtu wa lépp loo xam dañ laa wax nga baamtu ko ca waxtu wa nga xamante ni bu waxtu yi jàllee duutuñ sopp nga baamtu ko nee loolu moom gëneel la lépp loo xam ne dañ naa la rek maanaam maanaam sopp nañ nga baamtu koy waxtu rek xamal ne la nga def baax na nga xam tey fii ne bu waxtu wi jàlloon maanaam duñ sopp nga baamtu ko nga xam dañ naan la daal sopp nañ nga baamtu ko ci waxtu wi kon su boobaa xamal ne baamtu ko ngëneel rek la su fekkee ne defoo ko du dara loolu takk-takk bu la lépp loo xam ne laa nga baamtu ko ca waxtu wa nga xamante ne fi ne waxtu wi jàlloon dootuñ sopp nga baamtu ko xamal ne baamtu ko ngay baamtu ngëneel la soo ko defut wàññi dara ci julli ga julli ga na wax ya moom mis la fare mis la mis lu naf li kem nafee rek laata waxaat deftu ko def ko baamtu in xuruja dem in xuruj waxtaan gé dem génn waxtu in xuruja dem génn waxtiha waxtu wa yaqinan ci lu wóor xad ummi na ko digaleef nañ ko xat umi wóorle wóor xat umi na wóoloof na ko waaw léegi ñaari bind yi ñoo taqaloo xëy na damaa njëkkali ba ci kaw rek waaye wax yi moom mislu nafli mu ngi mel ni neefe rek laa tooxa aadu def ko baam baamtu in xuroo ju waqtihaa ngëm génn waxtu wa yaqii nañ ci lu wóor xat umi na wóoloof ko yaqii nañ ci lu wér na wóorul xat umi na ko <clears throat> nee na bu fekkee ne dañ laa wax ne la nangam bii daal euh, sopp nañ nga baamtu ko waxtu yi eh, loolu moog neuf heures rek ñoom day mel ni neuf heures rek waaw ah, nga xam ne tey fi mu toll nii ngëneel la ci yow rek nga xam ne fi ne tey waxtu bu génnoo maanaam du tee maanaam loola baax na ba léegi hmm. kon foofu la bunt boobu yem façon yabdag la fi fara'id salati ci faratay julle mu dugg nag ci faratay julle addu fara'id salati li mu faratay julli yoxarafu def na ko xam maanaam yoxarafu def na ko xam laakin ma siyox waaye sëriñ sa nak ikhtalafu wóote nañ fii ci mom neena li nga xam mooy julli ay farata moom maanaam moom lay bëgg a jàngale ci bunt bi waaye nag li mu faratay julli ci waxam maanaam borom xam-xam yi dañ cee wuute ñi dañoo wax ay lim yu wuute mu ne wa baadum ñenn ñi zakara tudd nañ xamsa taxasara fukk ak juróom farida tan ci ay farata wala baadu ñenn ñi sitta taxasara fukk ak juróom benn daa am ci ñoo xamante ne dañoo wax ne farre julli moom fukk la ak juróom am ci ñoo xam dañoo wax ne sax farre julli fukk la ak juróom benn kon wute nañ ci lakin ma waaye la nga xamante ni zakara tudd na ko al axdari yu mooy al axdari yu aati dinaa indi bi ci loolee li yaxfasa ngir mu wattu ko assabi yu gone yi assabi yu maanaam gone yi ne li nga xamante ne moom la abdourahman al axdari jàngale loolu moom laay indi ci téere bi ndax téere bi sëñ bi daf ci topp abdourahman al axdari muy nak lool nak lool lay indi rek ngir manam ki nga xamanteni ne gone la te toll ci njang man ko manam man ko te mokal mo commencé ko man ne awulaha ba ci njëkk ni yatuna moy sunu al muayyanata bari ba ñu summata takbiratul takbir summa takbiratu top kabaram al mubayyinatu bañu biral wa al mubayyinatu bañu biral neena li nga xamanteni mom moom jitu ci farata julli mooy yéene yéene yéene nga xam yéene gi nag danga koy ràññeel su fekkee da ngay julli tisbaar wala takkusaan wala timis wala gee wala maanaam suba nga ne yéenaa julli farata gii teew wala nga tudd julli waaw yi nga xam da ngay ràññeel da ngay julli bu dee tisbaar nga yéene julli tisbaar bu dee takkusaan nga yéene julli takkusaan nga ràññeel julli gi ngay julli kon ba ci njëkk ca farata yi moom mooy yéene ñaareel moom mooy kabaaru xarmal waaw kabaaru xarmal waaw kabaaru xarmal mooy kabaar bi nga xamante ni mooy tax nga mën a dugg ci julli waaw waaw mooy kabaar bi lay dugal ci julli mooy kabaar bi ngay njëkk a def wa la am kimam fatihatun maanaam jàng fatiha sumal xiyaamu topp taxawaay ba li aj haateen ngir ñaar yi kama nassa comme ni mu ko yexalee al imam imam ba nee farata ba ca mooy jàng fatiha fatiha jàng ko ci julli julli maanaam farata la taxawaay bi ngay taxaw na ngir jàng fatiha tamit farata la waaw ki noonu tamit bi ngay wax allahu akbar muy kabar xarmal bi taxawaay ba nga taxaw ngir wax allahu akbar gi noonu maanaam farata la waaw su toog rek daal di du baax kon bu fekkee ne maanaam man ngaa taxaw dara jotul la nga daal toog nii rek ci daa daal allahu akbar maanaam kon du baax faaw da taxaw wax allahu akbar kabar boobu farata la muy waxoon naa ko léegi muy kabar xarmal bi taxawaay ba ngay taxaw ngir wax allahu akbar nag farata la li ki noonu tamit faatiha yi farata la ab taxawaay mit farata la kay waadut waadut waadut mooy limal ruku an ruko suma rafaan topp maanaam siggi maanaam yëkkatiku min huja rukoba wasjud naga sujud ala jabhati ci kaw jabba warfa ak yëkkatiku warfa naga yëkkatiku min huja manam sujud bowe waadu lima rukoan ruko suma rafaan topp yëkkatiku min hu ci rukoba loolu mooy farata bi ci njëkk mooy nag loolu farata la muy ruko ruko farata la waa ponk la ci julli kon ruko ki ngay ruko nii jàpp ci say woom rukkoo gi farata la siggee ci rukkoo bi farata la wasjud na nga sujjoot ala jabhati ci kaw jëbba war faa nga yëkkati ko minhu ca sujjoot tamit farata la siggee ci farata la waaw xam mënoo sujjoot rek maanaam jaare foofu noonu daal pare julli faaw da nga siggi kon sujjoot farata la siggi ci tamit sujjoot farata la hmm. wa udda na lim minha bokk na ci faratay julli al i'tidal moy yamo wa kazalika non wa nañ leen lolu pare wa adduna nga wa udda na lim minha ci faratay julli al i'tidal yamo ene bokk na ci faratay julli moy i'tidal moy yamo yamo ci boy julli ndax yamo gi moy photo bu bor quoi yamo ñu ko gëna miine gën koo ràññee ci booru Coin maanaam booru Coin ba siggi nga yemoo ju kocc ba mel ni ba nga sujjoo ba nga rukkon wagut waaw ba mel ni ba nga rukkon wagut xam nga bi nga rukkon yi da ngay siggi ju kocc mel ni ba nga rukkon wagut nga xam ku la gis ne deme da ngaa taxawoon yi rek nga xam rukkon wagoo loolu mooy yemoo yemoo googu ngay def noonu maanaam loolu farata wa kazaa ni ki noonu addu tumaaniyati addu tumaa nii nati li mu maanaam dal ga waaw neen dal googu tamit maanaam faaga wa kazalika no addu tumaa nii nati li mu dal ga neen tamit maam dal googu farat la uqisa jàppeef na ko anhum jële ci ñoom nee na bokk na ci farata yi mooy dal gi dal gi dal gi nga def ne tekk foo tool rek ne tekk ba say cër dal waaw loolu farata la dañuy bañ rek ngay parax parax yi mel ni maanaam génn picc koo nga xam day for muy picc muy foree nga xam day daan capp rek di jug noonu waaw ndax yenn saa mas naa gis benn ab arab muy julli amul dal goo xam te ni julli gi ba julli gi jeex amul dal ixtidaal ak tumaan yi amu ci yoon bi ne ko ne yow moom julli woo da nga doon maam kii rek maam julli woo waaw kon tumaan yi ne ci farata ci la bokk muy dal gi tartiibu naa suñu toftale baynal faraa'id yi diggante farata yi lissalaam ba ci sëlma ba waaw tartiibu naa suñu toftale baynal faraa'id diggante farata yi as maanaam nee na bokk na ci farata yi mooy nga toftale farata yi julli maanaam bokk na ci farata yi julli nga toftale farata yi moom julli nga xamante ni mooy rakka bi nim tegaloo mooy allahu akbar jiitu jàng faade jàng faade ya jiitu maanaam rukon rukon jiitu maanaam sigi rukon sigi rukon jiitu sujjóot sujjóot jiitu sigi sujjóot nga tegalee noonu farata yi nee loolu moom farata la yiwi asalaamu salmal maanaam farata la waaw julusuhu ab toogaayam min al bàyyi ko ci al ilaa kum ba ci kum ga yaa xulaamu yow nguur si nee na salaamu mooy sëlmal farata la julusuhu ab toogaayam tamit farata la julusuhu mooy ab toogaayam farata la min al bàyyi ko ci al ga ilaa kum ba ci kum ga yaa xulaamu yow nguur si nee na bokk na ci farata julli mooy asalaamaaleykum asalaamaaleykum farata la toogaayu asalaamaaleykum tamit farata la mënoo jékki-jékki rek toog noonu taaya pare daal jug dem si yoon toxu asalaamaaleykum kon da nga bàyyi farata julli yàqu kon asalaamaaleykum farata la toogaayu asalaamaaleykum tamit maanaam farata la jëmmi toogaay boobu nga xam toogaay mujj ba day am yeneen tamit yu ci daje yu bëree bëree bëri moom mooy toogaay mujj boobu boo xoolee taay taaye mu ngi ca te léegi taaye boobu maanaam sunna la jotaayu taaye ba sunna la ni ki noonu julli ci yonent bi sunna la maam jataayu julli ci yonent bi sunna la ñaan lu ñu sopp la jataayu ñaan bari lu ñu sopp la ni ki noonu tamit maanaam li nga xamante ni mooy kii bi muy jëmmi wax gi asalaamaaleykum farata la kon tamit ab jataayam farata la kon lu ca nekk rek maanaam ab àtteem toogaay ba tamit àtte boobu lay am kon fi mu toll muy lim farata yi moom muy asalaamaaleykum jëmmi asalaamaaleykum moom farata la toogaayam tamit farata la ba sartu nijjati sartu bi yéene mi ala dal alaami fa way xam yi xiraanuha mooy ak lënkalem takbir ixraami kàbbaaru xarmal ba waaw ba sartu nijjat sartu bi yéene ba dal alaam fa way xam ya xiraanuha mooy ak lënkaloo mooy ak sësalem takbir ixraam mooy kàbbaaru xarmal bi nee na bokk na ci charte yi maanaam bokk na ci farata yi maanaam yéene waaw yéene dañuy sart maanaam yéene maanaam bi ngay commencé lim farata yi moom lañ njëkkoon a lim yéene googu na la wax ne maanaam dañuy sart nga sësale ko ci maanaam kàbbaru xarmal bi kàbbaru xarmal mooy kàbbaar bi lay dugal julli dañuy charte nag yéene ngi ci boppam sës ci moom kabar xarma waaw nga sësle ko nga xam te bi nga yéene roy ci imaam bi après après nga daal di kabar julli mu addu fara addul faraidi li mu farata yi xunaa fii intaha la jee alaama ci na nga xamante ni xad xakaa alaama ci kaw la nga xamante ni alaama ci kaw la nga xamante ni ko al axdari al axdari muy abdurahman al axdari xaawil ula ki aji laq ak kawe muy daal nii daal la ko abdurrahman al akhdari maanaam limee muy farata yi julli ñii daal la ko limee mooy nag foofu la yem su ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sunna yi kon moo ci topp mhm.